jërëjëf imam ci coowal xaalis loolu la ñuy des ba léegi euh, muy Bougane Gueye Dany moom tamit gis nañ ko mu def ab révélation mm-hmm. yàgg na sax tudd ay immeuble ak ay nangam ak sàng mais bii moom dafa mm-hmm. tudd ab somme di ko laaj daal Mansour Faye ci ay xaalis boo xam ne yëgoon nañu fu mu génnee mais yëguñu fu mu dem ak leeraluñ ci dara mm-hmm. loolu bi nga ko gisee dafa am ay jàngat yoo ci def wala da nga jàpp ne ba léegi Bougane dafa bëgg a defar euh, statut politique am wala da nga jàpp ne moom tamit day scandale scandale rek maanaam di wóor wóorlu. waaw pour ñu wane ne mi ngi ci biir. non man jàpp ma man dama jàpp ne bokk na ci lii état bi réussir. Hmm. waaw bon pas état bi gouvernement bi moo gën a xat. Hmm. gouvernement bokk na ci li mu réussir. Hmm. mooy mu mooy mu fexe ba scandale yi am. ay hommes politiques ñoo koy révélé. loolu lay bëgg. waaw ah, ah ñoom bu ñu ko waxee. day am couleur politique. <laughs> d'accord dégg naa la. xam nga journaliste bi neutre. société civile bi neutre. waaw Birahim Seck bu wax benn scandale. waaw bokkul ni ko gars yi di téye du bokk ak bu ko buggaan waxee wala Sonko ah, wax ko. dañ naan ndax da koy dam dam rek loolu fexe nañ bu journaliste yi nangootuñoo wax benn scandale. yaa ma daan wax ni ma ku bëgg a rey sa xaj. da koy jiñ ko ne dafa say jeex na. boo koy rey kenn du wax. kenn du wax parce que dañ naan xaj bi dafa say boo ko fi bàyyi ñun ñoom lay lekk. <laughs> loolu daatu loolu mooy dëgg. léegi fexe nañ ba homme politique bu révélé ñu ne ah kii de wujju Macky Sall la rek <laughs> mais bugaan même bu nekkee wujju Macky Sall bu révélé loo xam ne dafa yitteel askan wi mais loolu dañ ko war a topp ñu xool est que wax na dëgg walla waxul dëgg. Mhm. ba pare da leen a lancé défi de moom am na ay preuve ga mais dafa laaj Mansour ne ko leeralal man dama jàpp ne Mansour walu woon tëdd ci lal te leeralul mais sooy mhm. bu am na yoo xam ne ko waxee tey ci suba su ñu tontu la. waaw dëgg la koo ne ci bon Bougane bu waxoon ne Mansour fay gis naa ko muy deal ak. Euh, Ousmane Sonko. bu ko hmm. waxoon ci ngoon. bu ngoon muy def conférence de presse. balaa tëdd mu tontu ko. waaw léegi lu tax bu nekkee scandale duñ la tontu. Hmm. am na yoo xam ne dañ ciy tontu facilement mu leer. am yoo xam ne bu ñëwee mu leer ci askan wi la jëm duñ ci tontu. mais Bougane li mu wax ne aw xaalis bu état bi leb mu war a ñëw dugg ci keesu nguur gi. mu dugg ci keesu privé. waaw mais loolu dafa garaaw de loolu mooy jaawale sa poos ak poosu li ñëpp bokk. mais imam loolu dafa bari ak milliard li ñu wax ni moom la ci nit man te léegi scandale dafa nekk loo xam ne léegi Sénégal yi faaleetuñ ko soxla léegi boo naan sàcc nañ milliard dañ naan ah rek avancé te sàcc benn dërëm dafa garaaw rawatina sàcc ay milliards askan. Mhm. léegi nag comme moom tegal nañ ko ay laaj wax ko ay banque wax ko ay somme mais na génn tontu ci. na wax ne Bougane li mu wax. ah pas que keneen di ko tontul dégg naa ñeneen ñu ngi non non non Mansour Faye la cité. Mhm. Mansour mën naa tontul boppam. wala mu yóbbu ko ci yow. moo fi waxoon Babacar Fall boo ko waxaatee ma porté plainte. waaw mais moo nekk nii ba léegi. Mansour bu nekkee goro président de la République ñu koy tudd ci lii tuddaat ko ci Covid tuddaat ko ci leneen. vraiment dafa war a leeral position. yi mhm. nag euh, man jàpp naa ne nii ñu ko bëgg a bàyyee nii mu yomb. lii ah en tout cas réew mu sérieux warul doxee nii ñaareel bi ci des. Mhm. ñi leen di wuutu. su fekkee leeraluñu Sénégal ku yebu ñu saam ko ku nekk jël sa wàll ñu dem. Hmm. ah oh, mais mooy tax bu ëllëgee keneen ku ñëw toom da nga naan mais ñi jëloon mujjul fen d'accord képp koo gis ñu woolu ko jam ko baaraamu tuuma nekkul ci nguur gi. mësuma gis kenn ku ñu tuumaal ci nguur gi ñu woolu la. waaw musulam ci xaalis musulam musulam mais bu doon opposition nga bokk ñu woolu la. xalifa Sall li ñu ko wooloo wooloo ko Karim Wade. lu nu mel tuumaal nañ ko ñu bare ñu ne ci nguur gi kenn wooluwu leen. dëgg nañ ko Alioune tuumaal nañ ko Mansour Faye mhm. tuumaal nañ ko waa ji nekkoon fële ca Thiès te jiite woon na euh, poste Siré Dia mhm. tuumaal nañ ko Cheikh Oumar Anne tuumaal nañ ko ñu dul jeex mais ñooñu ñooy toogal seen bopp ci plateau ne amul mu jeex non du am benn du am suivi demal ci procureur nga leeralee ko foofu dafa la yam toog rek ne noo li muy wax nii amul te ñu koy wax du ñu ay nit yu ordinaire ay nit yu xam lañu yu xam di ay gëstukat buggaan nag loo ko mën a waxal gëstukat la mhm. nit ma wax ne du juum de la de gëstu am na fu ñuy amee information. la muy wax même bu dul cent pour cent mais am na cinquante pour cent yu mu ci xam. loola nañ ko leeral rek sénégalais yi ñu xam ne seen alal fii la dugg foog ñu bàyyi xel ne ñi nu dénk dañ leen a dénk li ñu leen dénk moomuñu ko. dañu am sañ-sañu di laaj lii ñu leen dénk fan la toll ñu naan ñu fii la toll mais ñoom dañ lay dépassé quoi di la wan ne bon nawloo wuñ la amoo loolu ñuy laaj. amul lenn lu ñu lay rendre mais yow boo rendre compte peuple bi kan ngay rendre compte. vraiment. ah bu ñu rendre compte fii. Hmm. danañu rendre compte fële de. incha allahu taala dafa sori imam waaw sori na de. waaye nag yu bari yu gëmul ni ëllëg am na. waaw ndax man lii ma gis ci réew mi bu ñu gëmoon ni ëllëg am na duñ ko dem de. waaw loolu moom dëgg la waaye dina am nag. Ah. ñoom seenu ñàkk gëm du ko teree nekk de. ñàkk hmm. gëm ne alaxira amul du tere mu am te wallahi waxuma alaxira mais ku ci wàcc nguur gi rek réccu benn hmm. xaalis ba du barkeel ñaareel ba dina nekk poson ci sa yaram ay feebar donc la leen di jural ñetteel ba boo duggee bàmmeel dërëm bu ne ñu war la ko topp sénégalais bu nekk nga war ko fay sept milliards kenn quatre-vingt-dix-huit milliards quatre-vingt-dix-huit milliards allahu akbar te benn milliard rek ni ñu ko xaymaa imam benn milliard rek lekk ko sax dafa të mën nga cee tabax mën nga cee dund dundal ci say mbokk benn milliard fonctionnaire moom mënul nekk milliardaire loolu moom ñëpp xam nañ ko parce que fonctionnaire dañ ko limité salaire am dégg naa seen xajma bi ñu ko waxee ñaan ci dene du ma ci ñaan parce que wërsëg ngeen ko jàppee te du wërsëg lii ñu la limiteel ne lii ngay am par weer boo ci yemee mënoo nekk milliardaire te fonctionnaire yaa ngi nekk milliardaire. waaw ah. man jàpp ma ni kenn ci ñoom dinay fayeeku deux wala trois millions par par mois. non ministre moom ay trois millions. même bu doon fayeeku cinq millions mais trois millions imam mënuñu ci investir lii may gis. non mënul di ci lekk di ci naan di ci tukki di ci fay njàng di ci faju di ci bëgg cee épargne. ah di ci maye. di ci maye te xam nga ay politiciens moom boo dul maye fii Sénégal. Mhm. xamal ne doo ami nit parce que sénégalais yi dañ jàpp ne xaalis bi nga yor danga ko war a séddoog ñoom pour ñoom ñu mën la topp. d'accord moo tax fonctionnaire mënul nekk milliardaire lu dul mu yoroon ay entreprise avant muy nekk fonctionnaire. Mhm. te loolu boo nekkee fonctionnaire dañ lay xaw a dawal yooyu parce que dañuy bañ mu am ay. Euh, euh, mhm. xaw ma nu ñu koy waxeeti. Mhm. nga mën a tibbee ci nguur gi. di mën a dugal ci sa société privée. ah d'accord foog nga démissionné fële pour nga mën a. xam naa yeggali fii ak yu mel noonu. voilà moo tax mënoo boole ñaari liggéey yooyu. c'est doy na waar ah, euh, jërëjëf Imaam ci euh, lu am solo loolu nga xam ni wax dëgg yàlla leer la nag parce que bu ñu xoolee li ngay gagné. ak yi ngay jënd kër yi ngay maye xaalis bi ngay joxe bi ngay tibri sànni gauche à droite fi ngay sa voyage wax dëgg yàlla salaire ru sax mënul lool. mënut a 10 millions laa def mënul laa def un milliardaire. 10 millions mënul la def milliardaire ñoom ñoo ko gën a xam. léegi nag ku ci yaakaar ne sàcc alal moom mooy tax yow nga nekk nit ku ñu naw man gëm naa ne ñii ñëwaat dinañ ko régler incha allah waaye bu ñu ko régler wul. wallahi ma ne ku ci wéet doo nelaw te di nga ko rëcc te boo waxalee yàlla yaa ngi feebar yoo xam ne. ba hmm. yowmal xiyaam doo taxalikook moom. wax nga dëgg te ku dekki di nga fay sénégalais yi sénégalais bu nekk somme bi nga jël loolu nga koy fay au lieu nga fay ñu ñun nga di ñu séddale sept milliards de. Hmm. ku nekk sept milliards nga koy fay. ok voilà.